liggéeyal ma fa liggéeyal fa yàlla liggéeyal fa xet wi lu ma la fa fekkewut dama ko amut ku ñëw ci penc mi nag tey jàkkaarloog jumaay jiinu woon ginnaaw xam ni maam nu itteem moo doon lislaam ak sunna ak dundal ndigalum sëriñ Touba te Serigne Touba di mu jàddit waaye moom maam Thierno amoon na way gu ni fu natt dëkk fu ne jàkka ja la njëkk rëdd ci dëkkuwaay ba moo waral nu tàmbali nag. joxoñ jumaayam ji nga xam ne sama borom jagle na ko ko ci ginnaawam ku ne xam na ni fii mu wootele wooteele si Serigne Touba Serigne Touba fekk na ko fi waaye àdduna fekk na ko fi tey mu mel ni bis la bopp nis fu saxbaan di fukki fan ak juróom ci weeru saxbaan di bisu barkeelu yu baree bari xew ci ci weeru tedd wu mag muy weer wi nga xam ni mooy weer wi mujj bu jeexee nu dugg ci koor gi maam Thierno fukki fan yeeg juróom yi nañu ko ko màggalal mooy bis bi nga xamante ni ci la jokkalante ak Serigne Touba bi Serigne Touba jógee ci géej gi te dénkan ko léppam dénkan ko njabootam dénkan ko ay daaraam dénkan ko kàddoom ñuy dem ba sa borom baaxe Serigne Touba baaxe nu mu dem ci géej gi def juróom-ñaari at ak ay weer ñibb si lam yóbbaale woon di pas-pasam ak jëfum ak bëgg suñu borom ak liggéeyal ko rawale xeet wi lépp mat muy indaale lu mat sëkk sëriñ bu mat sëkk waaye li ca dooleeku mooy. bi mu ñëwee fekk nag maam Thierno dénkaan yi mu ko dénkaan yëpp dara mejju lenn lu ci nekk na ko sëñ bi batale woon noonu la ko fekkewaat lenn lu ci nekkit na ko sëñ bi santaane woon ne ko na ngeen ko doxee noonu na ngeen ko dundee noonu la leen fekkee ba mu mel ni egg ci alxuraan ki nga xam ne moom la sëñ bi gën a bëgg gën ko itteewoo jëleen njaboot ak boppam dénkaan ko maam nu mu Cheikh Mouhamadou Moustapha ak sëñ Fallou ñu nekk ci loxoom fa tabaarakallaa kaamilub sëñ Mourou Moustapha ci géej gi la fekki Serigne Touba te bi ñuy sëñ bii dem di tàggoo di dem wax nañu ni mi ngi toll ci sóortu yaasin ci lañ toll woon waaye kaamil sëñ Mourou sàmm fekk na sëriñ tubaa ci géej gi kon moo koy wane ko daara ja moom géntut tasut danga daayut ma ngay mel nam daan mel ak na nga ko bëggee. tan rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, mbokk yi ñoo ngi nuyoo fii ci ëttub ku tedd ki di sëñ xaadim Mbacke ñu ngi ko xaadim docteur moom sëñ Modou Awa Balla Eh, di premier xalifa maam Thierno Ibra Faty kii di sëñ Xaadim nag nu fekk ko ci lim doon na def ci anam gu nekk bu ñuy wax ni buñ doon wax doon na fukki yoon ma ne mat na ko ci alxuraan ndax pincam kokki moom bàyyi ko di kër Maxtaar Ndumbe lii lañ xam lii lañ doon ñu amoon cërub démb ci alxuraan cër bu mag bu alxuraan wane ak xam-xam waaye muy cër bi mu doon naat ci Tayba askan wi mbokk yëpp di penc ci Tayba yi fuñ daje ba la ñoo waxtaane leen dañuy wàccub kaamil ba noppi soo ko wëlbatikoo nag lay seen itte ñu soog koy waxtaane waaye nag mu doon ne ko nag ci borom alxuraan muy Seyxul Xadim Xaadimu Rasuul maamoom di yi maam Thierno mi nga xam ni Sëriñ Tuubaa ko yar xamal ko ba taxawal ko melal ko ni mel nga xam luy Thierno rek Sëriñ Tuubaa la. waaye kon muy koo xamante ne nag yëmu ci doon gam doon nu daa doon ba pare nag jëfe ko dund ko. ndax doon alxuraan mooy xam ko man ko di ko dund nag di dundee tere eh, di dundee ndigalam di bàyyi teram euh, doxin woowu nag suñu xaarim di ko dox fa tabaarakalaaw sans borom bare ko ci anam yu bëree bari ci fànnu xam ndax booy euh, dereti xam loola xamal day yomb ba tax na li ñuy wax docteur ñu di ko ko wooyee docteur nag bu ñu la ko xisee wooy ci diplôme boo yooyu daal dina doon cër boo xamante ni xam nañ la nga jàng peek nga ko di la ko jàngal yaa koy jàngale kon nu bokkam yëpp ak njaboot gi toog di wàcce alxuraan ci suba ba léegi ci mbaar mi nga xam ni nii alxuraan rek la ko jagleel mu ne ci seen biir suba ak léegi ku ko nuyu fi nga ko fekk loolu muy yaakaar ju joo xamante ni nun gën nañ koo béggewaat ci bisub maam Cerno bi gën nañ koo dolliwaat ci mbégum mamaam Cerno béggee woon Serigne Touba kera ba mu ñibbisee ci tukki bi muy nisfu saabaan ñu jàkkaarloo ndénkaan la ko Serigne Touba dénkaan lépp mat te dara manqué wu ca lam defal boppam yokkal ko maa Serigne Touba lépp Serigne Touba gërëm ko te dara naqariwu ko ca kon noo ngi ci kanam Serigne Khadim Serigne Khadim asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu si ci bis bu tedd bii de dikk micro bi nga xam te ni ki ñuy wax Serigne Fallou Fall ko taxal média seexarafal poycom bëgg a xam nag ci maam Cerno lu mu dolli ci yoon wi ak murit gi nu taxaw fii sa kanam di sawar lool ci li mu def loo ndax liñ xam ci yow te mun nu ko wax lépp ba mu jeex auzu billahi min ashitaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi salaatan wa salaaman wa barakatan tahabaluna biha saadatan la suqawata ba'daha wa akbaru dan minka la suqata ba'dahu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli barke cheikhul xadim mbokk julli li maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziare maa ngi sant yàlla bu baax ci bi ñu mayee ñu teewe ko daaw teewe ko ren euh, bis bi di bis bu reuy ci yoonu Serigne Touba nax bi Serigne bi démé ci liggéeyam bi mu demoon bàyyi fi mag ñi euh, jël borom daaru jiital ko ci seen kanam ñom ñëpp ñu and jappalé ko ñom ñëpp ñu and sammu njabotu Serigne bis taxawulen bis bi ci la Serigne bi ñibisi di gisee ak maam Thierno Ibrahim, ñu waxtaan mu mu wan ko lim fi bàyyi woon ci ay matériel wax ko ñi fi bàyyi woon ñu toll ci jàng alquran fuñ toll ñi nga xam ne bind nañ ci kaamil boobu sëñ Fallou bind na kaamil ak sëñ Mourou te wax nañ ne bi sëñ bii dem Yaasinul Xaanil Hakim lañ toll woon waaw ñi fi bàyyi woon sëñ bi digaloon ko ne ko na nga leen jàngal xam-xam waaye bala nga leen di jangal nañ dem daara ci la daramaan ñu barkeelu ca doom ba ñetti fan wala ñetti weer te suñ ñëwee nga nga jàngal leen xam-xam ba mu yàgg mu ne ko nanga nga gën a sonn nag ci Momar Sëy ndax dama amee ci moom bor sëñ Momar Sëy wax nañ ne euh, mooy làmpum njàmbur waaw bis bi mooy bis boobu waaw bis bi borom daaru nelawen lañ daan màggal waaye Cheikh Mamadou Fadal radiyallahu anhu moo ne bisu bis su mbégte du bisu naqar te kat bis bi sëñ Touba gisee ak njëkkee gisee ak Ceerno Ibrahima bisu mbégte la ci ñoom ñaari ñëpp di bisu mbégte ci mur bi yëpp kon jàppaleen bis boobu ñaar koy toxal ñaar fukk ak ñeent ci aw baraxlu def ko euh, fukk ak juróom ci aw baraxlu muy nisu Saabaan waaw euh, suñ moo daw bàlla ci xilaafaam ci la soppat googu am waaw euh, muy dox ba ci sëñ Abdou Khoudous ba ci Baye Cheikh Khadi ba sëñ Abdou Khoudous daana wax ne ku fi nekkal sëñ Tuubaa rek soo digaloon ñu soppi koy ñu soppiwaat ko oh. waaw loolu nag mooy mooy liy rek waaw hmm, hmm, hmm. Euh, sukkaran sëñ bi nu sant yàlla bu baax waaye nuy bëgg a xam itam taxawaay sëñ Modou Awa Balla ndax sëñ Modou Awa Balla dafa mel ni dafa bari ay tur dañ koy wooyee waaye njàmbaaram ak nu nga woon a liggéeyal maam Thierno la ko saa borom fayee barke boobu ak barkeel googu ci ay turam euh, ñu ni Kara ji Mouhamadou Kara waaye ñu ni euh, ma Ndaayaan ñu di ko wooyee yooyu yëpp nag di tur yoo xam te ne lu jël njàmbaaram moo ko waral nu bëgg loolu ñu ci mën a dolli rek ci bis bi ndax ñi koy dégg mën ko gën a dolli koo taalibe gi waaw xam nga Kara moom moom moo sëñ Modou Kara Kara Thiel. Mhm. Kara Thiel mooy dëkk bi sëñ Mbacke Sanc. Mhm. fa la sëñ Bass Astou Lo nekk. na ko yàlla yàggal. Kara Thiel borom daar ci ñàkku borom daar la ko sëñ Modou Balla Sanc léegi nag dëkk bu am bayre la. Mhm. ba tax ku tuddee sëñ bi ñu di ko sëriñ Modou Kara. waaw mais Kara Thiel googu lañ ci jublu. nga xam ne Baye Cheikh Addy mi fi nekk nekkal fi borom daaru yàlla na ko yàlla may wér. Eh, bu bu ko eh, boole gi ko borom daaru boole woon ak suñu mu doobal la ba dafa bari ba sëñ bi wax na ne am na ci bu mujj bi moom bi mu ci bi am na ci bu ko daal bu nga xam ne Karachi lañ ko woo mu dem koso fekk fa borom daaru mu dénk ko Baye Cheikh Khady keroon ne na wax na ko ba ne ko yomal xiyaam yow laa koy laaj waaw xam naa booba xam na li ba li Baye yan woon war ko koo liggéeyal ginnaawam waaw waaw ndax ñoom seen njaboot duñu leen ump waaw dégg naa sëñ Modou Aminta radiyallahu anhu ci ci ñi maam Cheikh xamoon la bokk bi fi maam Cheikh di jógee dégg naa xàmme woon na ko waaw moom it xam nga liggéey na ko lu bari ah, barabam bee moo ko liggéey waaw moo ko liggéey moo tax nag euh, euh, karaaj yi ko andi ndaayaan ji nag sëñ bi dafa mën a liggéey man a liggéey ba buñ daan róoj lokkat bi nii li ñuy wax lakk lakk séeb bi da cee bañ tuddee ko ndaayaan ah, waaw foofu la tur woowu jógee waaw euh, ak borom ndomba gi borom ndomba gi ci turam la ndax xam nga ndomba googu nga xam ne ci moom la donnoo woon ci borom daaru nga xam ne sëñ Tuubaa ko bindaloon moo tax ñu ko borom ndomba ak baat ga hmm, ndaama ga ca ndomba ak baat ga Cheikh Issa mas na ko wax bi nga xamee ne borom daaru nelaw na mu taxaw ko bañ denc ko Cheikh Issa radiyallaahu anhu Cheikh Issa jenn bi muy ñibbi dane ay Ceerno dem na waay ne tekk ba mu yàgg ma ne ah waaye lu waaye doon wut Ceerno day soo ko wutee ca ndaama ga ca ndomba ak baat ga da ko am muy sëñ Modou Awa Balla waaw sëñ Modou nag moom dëkk bi bi ko ko bi ko daal di bàyyee dara néewu fi waaw moo fi njëkk a forage bi fi njëkk am ay xaritam Amadou Karim Gaye alaaji Amadou Karim Gaye yal ko yàlla yokk leer ak ku ñuy wax Assane Diop ñooñu ñoo jël ci ndox mi ndox mi fi amoon booba wax nañ ne ci ndoxu ndoxum ndoxum ban bi mi ndox mi fi ñu joggi moom lañ tànk def ko ci def ko ci biteel yóbbu ko ndar bi ñu ko wanee gouverneur ne ko lii ay doomu aadama koy naan aadama ah, ay doomu aadama koy naan dana déedéet lii kenn ko naan ne leen ñii yaayoo nañ forage ñu daal di watee budget 7 millions bi ñu watee million bi bi ñu ko waxee kii gas kii kooku ne transport matériel bi képp jege na 7 millions ñoo wate waat 7 millions waaye ñu ne nag bi budget ren bi moom jàll na déwén lañ koy def mu ca déwén muy 14 ñu yónnee ko Pout ñu jënd ci matériel bi ko tubaab bi jëndee ba noppi ne ma amul ko transporté otom otom daa paan ku ñu wax bay Fall Guuj Baye Thierno Fall Guuj moo daan dawalal sëñ mu daw balla camion sëñ bi ci la ñu roñ matériel bi indi ko fii ñu gas ci forage bi biñ gasee forage ba mu àgg tubaab bi nga xam ne moom moo doon jàppale sëñ bi nga xam ne ñu ci ñëw ko doon gas la bokk kooku moo ne ko ku ñu wax Idi Ba day moom rek moo mën a yor forage bi léegi wax tuba bi ne señ bi da ngay ñew ndar ma boy laak mom yow chef religieux nga kilifa nga ginaaw julit la bokk waxe dana ko nangu mhm. señ bi dem wax ak idiba Ba ne ko euh buma bañee day melni ne man l'islam ji ma ci la bokk dama ko gëm motax dana ñew bimu bi fi tuba bi ko daan fay de way señ bi moko gadul ba moko ko soxna ba do ma ngi fi ndol ba ba fim fa bim faato legi ëppul ñettat bu yagu rek la faat yag na 49 la lolou waaw moom booba euh, Dakar Bango la yor seen groupe moo ko daan taal waaw ko man xam-xam la waaw euh, kon forage boobu noonu la demee moom moo ko lijanti euh, ki ki ko ki ko ki ko yore woon sëñ bee ko yore woon ki ko daan taal moo ko sëñ bee ko fi moo ko yore woon poste bi bi mu ko lijjantee ba mu ñëw dañ na ko faaw mu am courrier buy dem Louga ñaari yoon par semaine oto moo ko daan yóbbu oto boppam moo ko daan yóbbu ku ñuy wax Alaaji la moo ko daan yóbbu matron bi fi jëkk nek du sunu mag yu baax soxna khadi ndjay mi ngi fi ba légui yalla nako yalla gëna yagal biñ ko déplacer señ bi nako bul dem lim fi tok lepp señ bi koy fay salé ci poosu bopum waaw euh, légui lay wax ñi naan leen seen mam señ Abdou Diaw ci mag ñi naan gasali teen borom daaru la bokk danaan wax señ mo Awa bal ne ko ba nga momé dëkk ba légui at mo dëkk bi dalona waaw waaw moo tax nag euh, euh, moo moo moo moo lutti si bi gendarmerie bi moo ko fi indi ndax xam nga sam daa amoon problème sàmm ak baykat dafay ba dafay amoon waaw moom ci jëm boobam moom fi indi gendarmerie bi waaw euh, vétérinaire bi moo ko fi indi waaw groupe bi fi njëkk am nga xam ne mooy taal dëkk bi moo ko fi indi ba tabax jumaa ji waaw mbooleem néegi barkeelu yu borom daaru amoon itam di makama di bayti dégg nga moo katabah. tabax waaw sëñ te moom ci néegu ñax la dëkk ba ni mu faat ba ni mu waaw jumaa ji itam tabax na ko ba mu àgg dërëm dërëmu ku dërëm bu dul bopp taalibe yi demu ci 850 millions 500 mille francs lañ ko tabaxoon avant dévaluation boobu dévalué guñu xaalis bi waaw yàgg na waaw ca tabax bu njëkk booba booba wax nañ ne tonne ciment 6 6 6 mille francs lay jar kon euh, taxaw nak da rakki da rakkam yi nga xamne ñom ñom la bokkalon borom daaru seigne koso mu taxaw ko ne ne bu ko kenn rombu seigne abdourahman mu waxtaan ak seigne modou mustafa euh, ci mu nek daaru marnan ndax ginaaw mom way juram ñang la sant te ñang ak mbacke bu so ñoo ñoo bok seenu bok waaw motax mu ne ñom comme no fete fof waaw seigne euh, seigne euh, zubair mu ne na fete jatme denga sëñ euh, Ousmane féete Sikori waaw waaw muy Cinkooli ah kon non non la defoon. waaw taxawu njabootu borom daru tabaxu taxawul ko dekkam bi defaral ko ko waaw ba mel ni mu mel tay waaw waaw motax euh, euh, ah, alhamdullilah sun sun borom fay na ko sëñ borom daru fay ko. waaw waaw borom daru fay ko. waaw xanañ ne tawat ji borom daru nelawee da ko wolu mu ñew mu ne ko Modou mu ne ko Mbacke mu ne ko dénk naa la ak yonent bi ak sëñ Touba daal di koy jox loxo wax nañ daa mel ne dara da koo roofu dafa ànd ak tàngoor ba dañ ko yoon yóbbu ko këram waaw mu sëñ Modou Balla waaw. Mm, waaw ñooñu ñooy royukaay yi. léegi laay wax ne alaaj Karim Gaye daan wax ne Amadou Karim Gaye mi lijjanti forage bi daan wax ne ñooñu waa kër sëñ Touba yooyu boo leen gunóo xam ne ndawi yàlla lañ ci kaw suuf waaw xam nga ndawal yàlla ci kaw suuf moom yaay wuutu yàlla ci jaamam ñi waaw dëkk bii bi mu duggee ci loxol sëñ ma Awa Balla lépp lu koy yokk def na ko waaw lépp lu yokk nit ñi def na ko te alalam la say jiitu waaw soxna soo su ma lay soxna Xadi Njaay mi ngi fi ba léegi faatoogut sëñ bee ko daan fay waaw am na waxtu wu nga xam ne sëñ bee koy fay ndax bëggul mu dem ndax dëkk bi mënu koo ñàkk te ñoom tax ñi ko fi indi woon nañ ko seigne bi téye diko di fay di fay ya, waaw idi ba seigne sëñ ko andi mhm. idi nee na bagn bañ tubaab yi bañ xam ne bañ tubaab yi jàpp ne moom gëmut lislaam moo tax bi ko sëñ bi woo mënu ngoo ñëw waaw dañ ko doon testé rek waaw dañ ko doon testé rek mu ñëw bi mu ñëwee bi yoral ko léppam waaw bëgg dëgg dox diggante nit ñi itam moo mu andi gendarmerie bi ba diggante baykat ak sàmm du du fi am xam nga loolu problème bu doy kimaan la problème sàmm ak baykat même sàmm sàmm ak bay ak baykat ak baykat rek barki démb képp lañ doon denc benn waay Touba bu nga xam ne benn kilifa yàlla na ko yàlla yërëm ay tool doo nga leen xëccoo ñu àtte ko jox ko ko kam ko doon xëccool fekk ko ca tool ya dóor ko dóor ko ay yat ba mu dee waaw hmm? nga loolu kenn mësu ko gis bi nag daw yu mel noonu moo tax moo indi fi gendarmerie bi teel gendarmerie teel na fi am tubaab yi ñoo fa euh, chef de bi fi njëkk a nekk la dikin dikin la tudon waaw dikin mo fi jëk nek chef de brigade tubaab la woon bu xon waaw da xam jamono waaw nga xam ne bo wala muju gendarme eh, eh, yi dañuy wax eh, sam yi ne len kuy dugg ci dëkk bi sa gannaay dang koy bayyi ca ca bitti boo duggee ci dëkk bo doxé sa say soxla ba pare fa nga suul sa gannaay nga jël ko dem waaye kenn dox ci biir dëkk bi ak jassé ak paga waaw waaw waaw waaw civilisation ak ak bañ lor waaw bu ñu leen bàyyee rek ñu gaañ ci nit ñi. waaw waaw waaw du civilisé kay. waaw jaa jaa si paaka kay du du waaw moo tax euh, ba la fi nekkee ba jógee fii si Abdou Khoudoss ñëw moom itam bay waaram ci tool bi. waaw yiir ñëpp ba euh, def fi li mu fi war a def jógee fi Baye si Khady ñëw ah Baye Cheikh Khady bi mu ñëwee moo daa mel ne ah liggéey suñu Modou Awa Balla lay waaw ndax mbooleem yi sëñ bi naaloon ci diggante jumaa jeeg ak biir kër sëñ bi kër gu mag gi kër sëñ Modou Awa Balla gii tey moom mooy ki nga xam ne moo ko àgg moo ko àggale waat defaraat ko ba mel nii mu mel ñaal suñu borom fay ko ci mbàkki sëriñ Touba. ñu rafetlu kàddu yi lool fa tabarakallah wax dëgg yàlla ni mën a wax itam ni eh, njabootu sëñ Modou Awa Balla ak njabootu maam Thierno yëpp wëlbatiku ni jàppale sëñ Modou Awa Balla ci li mu ndax mooy li mu mooy lii rek taxawu leen bañ mat sëkk di cerno waaye ñi fi des wuutu ko itam euh, jàppale nañ nag ki ki ñi ko wuutu ñëpp ndax njabootu sëñ Modou euh, Awa Balla defe naa ni jàppale nañu sëñ Cheikh Khady ci déggu ko ci kàddu ak ànd ak moom ci liggéey ak déggoo moom ci li muy bëgg a def yàq gàllankooruñ ko ci dara kon fa tawaarakal kon dafa mel ni sëñ Modou Awa yàlla nga koy fayal boppam ci njabootam di ko fayal boppam ci ginnaawam. waaw moom xam nga euh, njaboot sëñ Tuubaa gépp bent lañ. Mm-hmm. waaw moo defar ñëpp. ñëpp moom lañ yaakaar mooy seen kilifa euh, moo tax ku fu kilifa sampoo rek ña ko wër ñëpp dañuy daal topp ci ginnaawam. waaw boo fi nekkalee sëñ Tuubaa ñëpp topp ci sa ginnaaw. waaw boo fi nekkalee keneen it ñooy njabootam ñëpp topp ci sa ginnaaw wax nañ ne sëñ Saaliw mas naa toog ak sëñ Abdu Lahat yëgut ne mbaxanaa ngi ci boppam wax nañ ne bi mu laalee boppam ni daj mbaxana mi da koo xotti sëñ Saaliw da xotti daa xotti mbaxana mi waaw. waaw ah, ndax jàpp na ne gàllankoor la ci digganteem ak yàlla waaw waaw te ñu bokk ñoo bokk ñaari waajur yëpp ñoo bokk ndey bokk baay waaw eh. waaye eh, kii samp gi sampul sëñ Touba rek mhm. tax na ah, te te loolu sëñ bi daana ko wax sax ne du ma bàyyi kenn du ma nijaayi kenn du ma magi kenn mm. ñu bari xamuñu woon lu muy firi waaye ba léegi si am na ñooñ boo leen bàyyee boo jàppee baay mm. walla mag wala nijaay doo jëriñu ci ñoom da ngay gi doxal sëriñ gi rek. rek waaw ak kilifteef mu doy ci lépp waaw mu doy la ci lépp. Ah. soo ko defee rek ñoom. waaye soo doxalee mbokk mu dem ndax borom daaru ba mu daan wax ne sëñ Tuubaa du mbokk xamoon ne sëñ Tuubaa am na ay mbokk. ko am ñaari waajur am ñoo bokkal baay am ñoo bokkal ndey ak baay ah waaye teewul daan wax sëñ bi sëñ Tuubaa du mbokk maanaam booba daa bëgg a wax ne hmm. ku bëgg a jariñu ci moom doo ko bok mbokk waaw waaw ah, ah. waaw boo ko jàppee mbokk dootoo mën a jariñu ci moom waaw Xaadimu Rasuul du mbokk du mbokk moom daa yaroon di luy jaay rek maam Cheikh Ibrahima Fall mii maami ku baax kii borom yëf yi hmm. ah, ah. <laughs> lim ci am hmm. ko jënd waaw da ko jënd nee daana wax ne man bëgguma lu ma sawara si dama bëgg sëñ bi rek ah te maam Cheikh euh, euh, boo ko xoolee sëñ Touba euh, ñoom dañ daan wax ne dafa dafa dafa manqué xel baat bañ daan wax ma ndaw duma ko wax sama bi yar ma yuma ko waaye dañ daan wax ne amul xel waaye boo xoolee ni mu doon dundee ak ni mu fi ni mu installé woon installé Saint-Louis installé Thiès installé Diourbel mhm. teg fa njabootam ak ni mu daan liggéeye leetar yi mu daan sëñ Seexum sëñ Moussa Bachir yàlla na ko yokk leer bu am xel la nee na ma maam Cheikh masaan masaan bind tubaab bi muqaddima bi mu bind introduction bi day wax ne Ibra Fall notable Saint-Louis Thiès Diourbel père de Fallou Fall martyr 14 18 waaw 14 18 bu waxee loolu bare introduction bare nag daal ne waaw du ngeen ma may ma defal sama sëriñ bu baax bi nanga ma ki nanga ma ki nanga waaw loolu ko amul xel doo ko def mu xel bu mat waaw waaw bi wax na ne xel ma daa ñoroon te ñaw waaw fi na daa reen te bët ba sew tey gis lu bari waaw mu nga wax ni jëmm ji daa jëkkoon te mu ñeme woon dëgg te bëgg article mu am da koy si titre foncier fu mu am tool da koy bàyyi. waaw ndax bañ a tooñ waaw fi eh, eh, suufam si nekk Thiès. nga xam ne moom boobaag léegi léegi mat téeméer war na war a mat na ko sax taw def na ko def na defoon na defaloon na ko ay këyit lii ma am fii te sëñ sëñ am di xadi nekk fa hmm. wax nañ ne defal maam Cheikh defaloon na ko ay këyit boobaag léegi téeméer la nee nañ kenn du ko laal waaw ah, kenn du ko laal mais booba nit ñi xel xel aggutoon ci loolu sax ah. waaye lam ca doon ragal ba tax mu defaloon ko ay bi ba ci mujj gi feeñ na waaye fekk na mu njëkk leen ca. ah fekk na mu denc ko fu yàq àggut. waaw mm-hmm. ah, denc na ko Sëñ Tuubaa fu yàq àggut door koo wutali këyit waaw ah, moo tax ñoom eh, ñoom ñëpp eh, yàlla noonu ci seen barke. te may nu bët ak xelum bëgg ñëpp. gëm ñëpp. nangul ñëpp. jéem a waaw bañ cee wut xeej seen. ñoom kat jàmbaar lañ fexe nañ ba liñ doon wut ñu am ko am nañ ko de am nañ ko waaw ñun ñoo fi des waaw ah, ah, ñun nag boo mu ne saawaay di sàggan di parparloo ka euh, fanatique euh, philosophique parce que diine nungul philosophie ah, waaw surtout sëñ Tuubaa amul philosophie de waaw waaw da gëm rek da ngay gëm rek waaw ni ngay gëmee garab ne dina la faj noonu ngay gëmee sëriñ bi waaw waaw ñu yàlla yàlla euh, may ñu ngërëmu sëñ Tuubaa waaw média bi si si kilifa gi ko taxawal yàlla may ko ba yàlla may ko ci mu defal li yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ballighu anni walaw aya waaw da ngeen ma jottalil bu don ben verset sax ngeen jottalil mako waaw mom yàlla may ko mu jottalil mu jottalil yonent sallallahu alayhi wasallam jottalil Serigne Touba jottalil mam Cheikh ibrahim Fall jottalil jullit yëpp te yéen ngeen ànd ci ñu tam ñu ànd ko ak ñoom barka khadim rasul Rasuul amiin yaa rabbi sakkuwulaa fa kàddu yi rafet na mat na jot na te lépp rafet ñaan rek suñ borom baaxee nu yàgg ko fekk fii ci jaraay bi mu yàgg jiite mbooloo mi jàngal xuraan dundal bi bisub uh, maam nu bi te donc moo tax ma wax lii Baye Thierno lu baax rek lay wax loolu moo ko noonu da nga nëbb waaye da nga feeñ feeñam gii mu feeñ bu maam Thierno jógoon Cheikh Mourada Balla ma la ko waxan may toog sa tànk day jëm kanam ci diina ji jëm ci l'islam bi jëm ci ligue cheikh ibrahim bi kon yalla nga fi yàgg Mbàkke loolu rek laa wax Baye Thierno <laughs> nag am na yeneen nettali yoo xam dëgg la kon li nga wax lépp dëgg la. jërëjëf Mbacke maa ngi ciy sant bu baax. waaw maa ngi ciy sant bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf ndax Darou Gueye moom. dafa mun te gannaaw bi. dëgg la kon nag loolu est-ce que dëgg la dëgg la dëgg la ndax suñu message kenn jiitu ko ci. dëgg la dëgg la. loolu xam nañ ko te yéen itam ay jàmbaar yéen yoo xam ne addina mm. euh, yëpp xam na ko mm. benn gone gu dëkk Daaru Gaye goo sax yëpp mm. muy son pantloo wala muy def leen doo mukk noonu loolu yàlla ko dal leen jërëjëf nag loolu war ngeen ci waaw jërëjëf ñun xam nañu ne Daaru Gaye lan ci jàpp xam ndax ki nga xam ne ji moom la nekkal. Hmm. lu lu lu ko am. te wax waxtaan ci daal ngay. bu dul benn du ñaare. dëgg la te doole jàpp nañ ko te duñ ko am. jërëjëf Mbacke jërëjëf dëgg la jërëjëf Mbacke. waaw jërëjëf. ñun jataay yooyee. ñun hmm. da koy boole. jërëjëf. waaw ba tey jii. Hmm. kon nag. loolu nga wax. dëgg la bu wér. dëgg la bu wér. waaw bu wér daal. dëgg la kon nag kon nag ñu ngi xéwal nga am daal. ak ak noonu yi leen yàlla bindee. dañuy ñaan si dara jégalu daal rek. mu yokk. ndax am na ay gone. waaye nag la ñu bëgg jaaru yi. waaw moom laa waaw borom defal na leen waaw yombul ci jamono ji waaw lu ñu sumb rek waaw yàlla na sa ndam waaw te lu mun lu ne fu mu nar a sax fu ne solan ci seen dara aman na nu gan boo xam ci biir ba nar naa yàq suñu waaw waaye ñoom ñu ñu jógee Dakar gis génn ko. la fa doon yàq lépp loolu nag ci la ñu taxaw tey ci la ñu taxaw. waaw nga bëggal leen nga dolli leen ñaan. luñ songati nañ ko daal. ci lu baax ci lu baax parce que lu baax rek ñu ngi yëngu. waaw waaw ñaanal leen. waaw moom de lim ci dolli mooy tuuti la rek. waaw maa ngi si góor gi moom sëñ bi gën a ñoom góor yi fexe nañu ba dajale fa def fa jumaa joo xam ne seen cent millions topp ñoo ko de ñi ko ci ko def ñoo ko jumaa ji mel na la war a na nga di takk googu ñu takk ba di ko defar mu ñu fa nekk di ci julli takk noonu ko sëñ Maxtaar doon defee ci ànd ak na maa bu maam bu maam Maxtaar Gaye mi ñu gis jumaa ji ni ko gone yi def xolam dana seet jaww la ñu rey mënuñoo def waaye nag bu loolee mënul am dëru bi dana fa am am nañu foofee mbarke yàlla na fi yàgg dañoo ko def sax yàlla na fi yàgg ci waaw waaw ko soo ko soo ko doon dégg ko. am lu siyaar rek mën na koo indi. am lu siyaar rek indi joxe. lu waa si siyaar rek jox ko ñëpp. ñaan gi. am ko soo jëlee yàgg dee neex de. comme yëg leen si sama lu siyaar rek. waaw am lu siyaar rek day indi. baax nga ci tool bi baax si dongo yi baax si doomu aadama yi baax si diwa ji du tere guddi dina tere bëccëg yàlla nag fa yàgg ci nag. daaru koy ji nag yow rek la ñu nooyee daaru musu rek la ñu bëgg seen diga rek la ñu déglu bisimilah nangu ko. lii ñëpp ñu ngi déglu koy rek si baax. mooy lii ñu gën. tàllal leen loxo yi tàllal leen loxo yi. mooy loolu day dëgg nag kon de si gën nga bàyyi seetlu de gën nga bàyyi seetlu sax nga bàyyi. ñaari ñëpp. gën nga bàyyi seetlu kay kay. ina am na lu ma juróom yetti at yu di siiw nag morom te dara yàqu bañ defal ko lépp nag mu indi kon nag mbégte moom la nga xam dañ am day tax si taalibe yi lu ci waay jaar daa mi dàq na ko fas rek ci ñaan loolu lu ko ci fas neen taxaw nii noo ngi taxaw ci keppaaru sëñ Seex Xadi xalifa borom daru. mu mel ni nit la koo xam ne boo fi ñëwee jëmm ji boo ko gisee sa xel day dellu ci sa borom waaye këram it boo fi ñëwee da ngay gis ni kii mi ngi teg bëtam ci fa maam Cerno doon doxee ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaye nu fekk fi nag ci jëwriñ yi koo xamante ni suñu see suñu seex gay Baay Faal di dëkk daa dëkk dëkk bu ñuy wax daaru gay di taalib suñ mu doo balla mhm. waaye nag mu am seere yu rafet yoo xamante ni mi ngi koy def ci suñu seex mii tey ndax yàgg gum yàgg a topp sëñ Modou Awa Balla moom mi mu fekkee ci lu bëree bëri ànd ko xalifaam yi nag sëñ Thierno Gueye ñu di ko wax si Thierno Gueye Darou Gueye euh, bi ñu ci biir ngeen dégg kàddu yu yi nga moom la sëñ sëñ bi def seere ci Darou Gueye ak mbooloo ma jógee Darou Gueye muy lu yéemee loo xamante ni euh, dëppoo nag jëmm yi nga xam ñoo taxaw tey di jëmal si borom Darou Moti di dundal seen kóllëre ak borom Darou Moti ñëw ci kër sëñ Cheikh Khady bisimilah sëñ seex Gueye. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu sëriñ bi bu baax di nuyu bal talibi yi di nuyu bokku yi te ci dam ben sédé buñ ci wax rek sédé bobu da no ma sa am ben julli juli teet nu selmal sëñ Cheikh dadi di soli ay dalam genn dem yar Dakar sëñ mu daaw bàllan ni gess ni ana Cheikh ñu ni ko dafa genn mu ni ko sobee demal yët leen mako ñu indi ko mu tok mu ni ko Cheikh mu ni ko Mbàkke mu ni ko togal da ngay neub way da ngay feñ Cheikh mu ni ko Mbàkke mu ni ko da ngay neub way da ngay feñ bobu ma ngi fi tut tank dépp taalibe bi di ñëw fi moom sëñ bi doo ko toog ndekete loolee mu doon wax nag tey yii la feeñ nii mu feeña bu maam Thierno mi waajuram dikkan ak sëñ Mouda Balla moomee di magam wax ko ko ci diggante taalibe yi bokk gi liggéey bu mu liggéeyal borom daaru ñëpp teg ci bët tànkam day jën kanam waaye du jëm gannaaw soxlawul dara lu dul lu borom daaru bëgg soxlawul dara lu dul yàlla yonente bi sëñ Touba dem tool jàng alxuraan moom lay def lu moom lay def gis nga néegam bii nu ko fekk ñaari néeg yii moo nekk yaar daxaar soxlawul tabax soxlawul oto soxlawul mbubb lu dul rek lu ceernu naa leen lu ne lani moom la bëgg àggale nun ñëpp nañ ko ñaanam àggale ku ñëw daaru ku ne boo ko joxee fukki dërëm dugg ci jàgg jumaa ji wala nga dugg ci kër gi wala nga dem ci xabru yi boo joxee fukki di nga bëgg a joxe téeméer sëñ Cheikh yàlla na fi yàgg bugul dara lu dul liggéeyub ceerno bi àgg rek yàlla ko yàlla àggale nam ko bëggee loolu rek lañ ci doon seede sëñ bi nga baal ñu àq tabaraka jërëjëf ni Bawol FM ak Cheikhrafal point com muy ñaari média yi nga xamante ne lépp day wàllu borom daal di wàllu Serigne Touba ñoo fi daje tey jii doon def ay intervention ci Serigne su si di sëñ Cheikh Gueye ak sëñ Ceerno Gueye bu baax bi ñu doon siyaare mu taxaw bisub maam Ceerno bi di sëñ Cheikh Khady yàlla na ko fi yàlla yàggal te yàgg ko fee loolu mu ci dool sunu maam Maxtaar hmm. noonu ni la sëñ bi jiitu nu jiitu nu topp ci ñoom nu ànd moo sunuy mag sëñ Mokhtar Gaye musta xëy benn bis bu ndaw li xëyee daaru ndaw xëyee na daaru koy ñëw moo tax loolu mu wax mu ni ko wanag la buntu kër la noonu mu toogee la toogee waaja mu duure tedd ko moo tax moom rek lañ roy bu ñu ñëwee ci kër yi rek moo tax bu ñu dikkee bëgg daal dikki joxe la ñuy joxe xam nañu kan mooy sëñ Cheikh suñ mag a ngi nii mooy suñu yëpp ah, sëñ bi nag na ci def ay kàddoom ndax mooy suñu kilifa moom mag ah, waaw kon euh, kàddu yi sëñ Cheikh kay bisimilah bisimilah asalaamaaleykum ñun mbooloom réew mi noo ngi leen di nuyu ak bokki ba jullit yi ak bokki dëkkandoo yëpp ah nun nag leen liggéeyal sëñ Tuubaa rek ak borom daaru ndax suñu fekke woonu duñu mag waaye li ñu jot a fekk gis nañu si borom daaru sëñ Tuubaa rek la topp topp si borom daaru bu ñu gisul borom daaru topp ci ku fi nekkal xalifa ci loolu na sax liggéey di jaamu yàlla ci nu ne xamuñu gouvernement nu kenn ku dul ñaq suñu ñaq yi ak loolu nu lijjanti teg ko ci siraatal mustaqim kon loolu ci la ñuy dund defar nañu ci sunu dëkk ku fa taxaw kenn ku ne jumaa ji fa nekk dem nañ ci juróom fukki million yëggagul ci déedéet liñ leen dépassé gun yëggagul ci boo xam ne bii gune yi euh, dem dañu bu jumaa ji yeggee dina romb loolu ku ko dégg te def ca ngir yàlla def nga ko ci loolu nag ci leen sax guddi ci leen sax bëccëg amul bàyyi Cheikh mi nag man ba may ànd ak moom xale bi moromam laa juróom-ñaar juróom-ñaar la nu woon ci dëkk ba ñëpp daaw ma des ci te duma ko bàyyi mukk lolé ma ko don top nak reccu mako doko reccu ndax ñama ko bo len def ñep ku ci nek dem nga way man dem ma ngi tok jërëjëf te suma yene xana mu murma ma dem beuyte rek jërë ngeen jëf yalla yalla yagal seen taxaw yow na nga tudd man bal sam jërëjëf bay bamba ko wajal muy cheikh abdoulat mo yok jumaay daru ji cheikh abdoulat mo yok jumaay touba ji Serigne Cheikh Khady Mbacké yàggal te wér sa sa subaay wii nga àggale ko ay ati at si rabbana atina samag ju baax ja Cheikh Modou Awa Balla teel la say tànk bay Cheikh Khady Mbacké yàggal te weer sa sa subaay wii nga àggale ko samag ju baax ja Cheikh Modou Awa Balla teel la say tànk bay Cheikh Khady genn kër ci këru njabootu borom daaru kër sëñ xalil moom borom daaru moxti mu mel ni ñu fekk nag njabootam toog moom ci boppam nag dafa génn waaye ci njabootu borom daaru la defe naa ni euh, bi ñuy wax ci gën a nekk mujj mujj ci njabootu borom daaru moom la ñuy wax euh, ñu fekk fi sëñ Mahmadan ak sëñ osmaan ak sëñ xaadem ak euh, sëñ Abdou ñu tok ni di wajal bis bu mag bi nga xamanteni moy bisum ngeureum bi nga xamanteni borom ngeureum du reel di borom dal mo xati si am ci al khadim ci ndénkaan yu mag yam ko denkon ah, ba ba lol te jamono di jafe jamono yu metti yu jafe mu jël ko yennu dinkan lol ndax gëm gum gum ko ko denk yor ko yor mu mat ndax compétence ba amone dox doxine bu rafet ngir euh, jikom ju reey jëm yor waye bëgg sëriñ Bamba tax leppam sëñ bi jaral ko ba tax na ndénkaan la dara manki wu ci lepp mat bis bi sëriñ Tuubaa gisee ak mom nak mu diko ko lam ko saytuloo woon moy bisu nisfu sahaban def ki fan ak juróom ci weer wi ñu nek ñu fekk fi jabar gu tedd gi kon jox kaddu gi euh, sëñ bi mu leral ci lu ci ma leral bismillah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 ñi ngi sant cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul ay di yassalat sunuk njëbbal ci cheikh Ibrahim fati borom mati euh ñi ngi jégalu bu baax ci kàddu yi nga xam ñing koy yëkëti ci kanamu suñu kilifa eh, ci fi ci kër serigne khalid di ciatum borom darul mati eh, yalla dogal ci ndigalul cheikh mamadou awa balla mi nga xam mo moo njëkk borom darul mati euh mu joxon ko ndigal ci bu magal gi mu dem bitim réew di ko fa màggali ci taalibe yi loolee ndigal loole mu di ko wéyal ba ni fi sëñ Abdul Xudus ñëwee continuer loolu ba sëriñ Cheikh Xaddi mii fi nekk di borom Daarul Moxti màggal gu jotit mu feddaliwaat ndigal loolu loolu moo waral sëriñ bi màggal gi du ko fi fekk waaye mu mel ni njaboot gi fi nekk ci njiital sëñ Mahmadan lépp loo xam ne sëriñ bi daana ko fi taxawee ci saytu bis bi ba mu jàkk ñi ngi koy taxawee na mu gën a rafete Euh, ñi ngi leen di nuyu bu baax yeen it ci yaatal gi ngeen yaatal ak ñew gi ngeen ñew fi ñi ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba tanki yi ngeen dox ba ñew fi mu doon tanki yu barkel doon tanki yu doon tanki ngeenel <coughs> xana di leral tout rek ci borom darul muhti ndax ko euh, ñepp xam nañ ni Cheikh Ibrahima Fati borom darul muhti Cheikh ahmad Bamba Khadim rasul moy leppam ginaaw biñu bokke ñom ñaar way juru wu muy seigne Mor Anta seli ñu wëlbatikuwaat it bokk seen jenn maam muy Ahmadou Soxna Bousso ndax sox eh, borom daarul moxti soxna Faati sa Diop mii way juram wu jigéen ab sa mbàkke mi ko jur Ahmadou Soxna Bousso ko jur Ahmadou Soxna Bousso ma maaram eh, Cheikh Ahmadou Bamba it soxna Jaariyatullaahi mii way juram eh, maam Astawaalo mooy way juram wu jigéen maam Astawaalo ahmadu Soxna Bousso Ahmadou Soxna Bousso sëñ Mbàkke maaram kon dañoo bokk ci ñaari wàll yëpp. Euh, ginnaaw bi ñu bokkee nag te ku ne xam na ni ak mbokk dafay lu am solo ci diine ndax suñu borom tabaraka wa taala euh, yonent bu mas a yónni dafa lay wax tàmbaleel ci say mbokk wa ansir azirataka al aqrabin kon euh, mbokkoo googu dox seen diggante waaye borom Daaru Muxti dafa jël mbokk gi teg ko fële di dund ak sëriñ tubaa ak talibe bi mu feeñee jamono rek la ko woy juróom wu góor jël jox ko Serigne Touba ca Poroxaan nga xamne wax nañ ni kérok ba mu feña jamono sëñ Mor Anta Sali daf ni Serigne Touba nemmeeku ko ba xam budé gor la nga xamne kat yan bi la suñu borom ya-, nara yan nga war ko liggéeyal l'islam dina wayef waye bu féké jigen la nak na nga fexé no teyé saytane té xamni ni mbir man na baña feñ fi fii lu feñut fi ëlëk yomal xiyam dina feñ kon seenub and fofu la tambalé ca ba borom Daaru Muxti feña jamono Serigne Touba ko jangal alquran ba mokal donte wax nañ ni sax bi mu amee at yu néew seen jur boole na kook maam Cheikh Anta jox leen sëriñ sëriñub daara bu ñuy wax sëriñ ñang ñu jàng fa as lëf waaye borom daaru woy wayjuram da koo delloo siwaat jox ko sëriñ tubaa sëriñ tubaa jàngal ko ba mokkal alxuraan ci loxol sëriñ tubaa wax nañ ni ku ko teel a mokkal la ñii na ci fukki at ñii na ci fukki at ak benn waaye lu ci mën a am daal li gën a wér mooy bi muy am fukki at ak juróom fekk na mu mokkal alxuraan mën koo bind te du ko xool Eh, boole kok nak di liggéeyal Serigne Touba niko Serigne Moussa Ka netlé wax nañ ni kérok bi nga xamante ñi ngi fi ci mbacké kadior te bobu Serigne bi woté gud yoon wi wax nañ ni fajar gi borom Daaru Muxti di taré alcorane Serigne Touba ngi tok ci kawlal bi serigne Masamba Diop sam tëdd ci ginnaaw ndax serigne Masamba Diop sam ak serigne Touba ño ño bokkon doon jang manam jaxoso won nañ lool ba buñu masaan xey sax di dem ci tolli ñoy and da nañ bokk ben lal buñuy kérok bi borom daru taré alcorane ba ci fajar gi ba ba ba kaamil bi jeex Serigne tubaa daal di jël loxoom teg ci bopp bi daal ni ko dee nii nga ko taree noonu lañ ko bind ca laxwul mahfuz ma Massamba Diop Sam nee na bi mu déggee Serigne Touba wax loolu dafa beppeeku dugg ci ron maanaam diggante lal bi ak termi daal ni kuy xam la nekk laxwul mahfuz day dootuma bokk ak moom di tëdd ci ab lal nga xam ni kon eh, diggante borom Daaru Muxti ak Serigne Touba yàgg na lool booba yoonu murit sosoogut nga xam ni kon Serigne ko jàngal yar ko. tarbiya ko def li nekk ci moom loolu waral bi Serigne Touba nag demee ba nga xam ne natt bu yegsi na ci moom mu war a génn réew mi liggéeyali suñu borom tabaraka wa taala te ñàkk a génnuk Serigne Touba googu maanaam bu Serigne Touba génnutoon bu boobaa kon defe naa ni Sénégal kenn du fi wax lislaam ndax Serigne Moussa Kane ni mu ko waxee bu dut kon ak demam gii kon walaf nasaraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraanu Serigne Touba waxal ko boppam ni sababu xaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi nga xamni kon gennum gogu mënutoon a ñàkk waaye nag eh, suñu borom tabaaraku wa taala sa su nek buy buy defar mbir dafa am lu mu bolel booleel eh, bi Serigne Touba di jang alxuraan ba tollu suratul qasas bo gisee ñuy nuróole digënté Serigne Touba ak yonent yalla musa di ko harun ak musa ak borom daruk Serigne Touba dañu nuro bi bi bi jang ba tollu suratul qasas ci la borom daru Muxti Fi fi suñu borom di waxee eh, waaqi harun huwa afsa'u minni lisanan musa don wax yalla nan ko. yónnil eh, mu na sama mbokk mi ndax moom ma gën a leer aw làmmiñ ndax mu man di ma waxal bi Serigne Touba tollee foofu ci la borom daaru moo ti feeñ ci jamono léegi nag bi bi borom daaru feeñee ba sëriñ Touba nag war a dem ci géej gi kon nga xam ni kon Moussa bi muy dem ci xadir mi ko suñu borom booleeloon na la bàyyee bàyyeeloon njaboot gi muy eh, lu am solo ñu mat ko bàyyi xel Serigne Touba it bi bi nga xamante ni jàkkaarloo na ak tubaab yi borom daaru moxti la bàyyee ak njabootam waaye day ñaari mbir wuute bu Musa Moussa kané so don doon Moussa muy sam Haruna seeni mbir rek yoy la mbir nurona na la len xaw a ndax dané ko so Musa, Moussa waye du Moussa ndax Moussa ku ne xamna ni bimu démé and ak khadir diirub ñeen fukki fan rek la waye bimu delusé mbollem mboolem lu mu euh, Samir yu yak na ak Firawna ba nga xam ne ñi toppoon yonent yalla Moussa ñepp mujj nañ bayyi yonent yalla Moussa top ay Moussa bim mu ñibbisee mere na mbokam mom ba japp ci batam li ñuy duma ya eh, ni ni ni ko ni ko di netlé nan ko la taqus bi liyati wala bi rasi bul bul bul japp ci sama sikkim wala nga di ma xoj nga xamné kon yonent yalla Moussa eggon na ci mer eh, waaye Serigne Touba bi mu dellusee nak contraire bi mo am eh, Serigne Abdou Khoudoss danaka faral di netli nee bi kérok bi nga xamanteni Serigne Touba ak borom dalu moti wat nañ mu tombeek bis bi ñuy magal suba muy nisu saaban wax nañ ni borom daaru bi mu teyé loxop Serigne Touba bi ba seug ci bi mu sigé dafa mel ni dañ ci soti ndox ndax toy. ay ranxoñ ndax ciofel gu mu amoon ci Serigne Touba wax nañ ni bi Serigne Touba sigé ñom ñaar wét nañ lu tollok juroomi waxtu yo xamni kenn ñettelu lon waye lañu doon wax kenn borom daaru mat neena duko netti kenn waye la ci am solo dal neena Serigne Touba neena ko ndax su fekkonte ni yow ya dem man ma togon ndax li nga man dana ko man loolu la muy tegtale mooy borom Daaru Muxti ak maandoom ak sàmmoom nga xam ni lu Sëriñ Tuubaa bàyyi woon mu doon benn bi mu dellusee borom Daaru Muxti yokk na ko ba mu toll fa mu war a toll mboolem fu daara nekk borom Daaru Muxti yokk na ko fu Sëriñ Tuubaa war a am kër mu sanc ko ñu di fa jàng ba ci gis nga Cheikh Modou Moustapha ak Sëñ Fallu li ci gën a siiw bi Sëriñ Tuubaa di dem mu ngi leen bàyyi ñuy jàng alxuraan Euh, surtout Yaasin la moo gën a siiw ci li wax ni foofu lañ tolloon waaye kaamilub sëñ Modou Moustapha fekk na Serigne ci biir géej gi kon nga xam ni taxawu nañ ko taxawu boo xamante ni bu fi Serigne Touba nekkoon euh, taxaw ba noonu rek lay mën a mel kon matuk borom Daarul Moxti ak bëggam Serigne Touba ak jeexam ci Serigne Touba moo waral lii nga xamante ni moom la ko Serigne Touba faye tey ñëpp teg ci seen bët kon nag euh, bis bi nga xam ne moom lañ koy moom la ñuy fàttaliku borom Daarul Moxti mooy bis bi mu dajee woon ak Serigne Touba ndax. Euh, borom daaru mi ngi génn ci weeru saabaan wi ci àdduna waaye ñaar fukki fan ak ñeent lay tollal màggal nañ ko benn yoon ndax 1943 la borom daaru moo ci génn àdduna 44 ñu màggal ko 45 ñu màggal ko ba 46 bi sëñ Modou Moussa bi sëñ Fallou toogee xalifa sëñ Modou Moussa mi ngi mi ngi génn àdduna 45 46 bi sëñ Fallou toogee nag la bind leetar yónnee ko euh, sëñ Modou Awa Balla xamal ko ni ko kat bis bi nga xamante ni. Eh, sëñ Fallu eh, sëñ Tuubaa daje woon na ci boroom borom Daaru Muxti mbégte gënu koo rëy ci ñoom ñaar kon nag na ngeen jàpp bis boobu di ko fàttaliku borom Daaru Muxti loolu moo sabab màggal gi kon eh, ci ndigalul sëñ Fallu ci lañ ko ci lañ koy defee ndax sëñ Mourao bala dafa woo sëñ Abdou Khoudoss ne ko bindal leetar yónneel ma ko sëñ Fallu ngir ñu yeesalaat ndigal li ñu yeesal màggal gi ci la sëñ Fallu nag wax xamal ko ni ko kon nañ ko def nisfu saabaan nisfu saabaan nag di di di lu am solo ci lislaam Euh, bokk na ci li ci ëpp solo muy julli ndax ku ne xam na ni julli mooy jaamu yàlla gi gën a màgg ci kaw suuf ndax mboolem jaamu yàlla yëpp benn bu ci nekk yonente bi sallallahu alayhi suñu borom dafa yabal jibril mu indil ko ko jàngal ko ko nañ ko defee julli rek la suñu borom tabaraka wa taala jël yonente bi jëlee ko makkatal mukarram yóbbu ko baytil maqdis jëlee ko baytil maqdis yóbbu ko ca ca fa mu nekk wax ko julli nga xam ni egg na ci digganteem ak suñu borom xaaba xaw seyni ñu ni aw àddina maanaam ni ñaari baaraam yi jege wala ñu gën a jegantoo soofu la ko suñu borom joxe julli eh, wax nañ ni yonente bi sallallahu alayhi bi julli yi doog a ñëw bi muy julli baytul maqdis la daan jublu waaye bisub nisfu saabaan bi bisub suba bi ci la ko suñu borom wax ne ko fa walli wajhaka satral masjidil haram maanaam li ñuy tuddee taawilul qibla bisub nisfu saabaan la am maanaam eh, boo demee madinatul munawara eh, da jàkka ji dafa nekkoon masjidul nii lañ ko daan tudde nga waaye léegi defe naa dindi nañ benn xibla ba sax ndax nit ñi dañ daan julli fii julli fii ñu ne loolu bi daala la waaye ci jàkka jooju loolu ci bisu nisfu saabaan la am muy julli ba yàgg suñu borom aaya bi wàcc mu wëlbatiku jublu makkatal mukarram bisub nisfu saabaan la am kon nga xam ne nisfu saabaan bëri na njëriñ ñu ci nekk dëppoo nañ ci it ni almahdiyul muntazar bisub nisfu saabaan lay juddu loolu téere yëpp dëppoo nañ ci wax wax nañ ni it ni mboolem ruu yi nga xam ni ci la suñu borom di leen décider pour ñu war a fekke déwén ci bisu nitu saabaan la ñuy yéege yooyu ruu kon euh, ruu yi nga xamante ni waruñoo fekk déwén ci la suñu borom di baare seenub lis ndax waruñoo fekk déwén kon mu doon bis boo xam ni bis bu mat a bàyyi xel la ci diine bis bu mat a euh, bàyyi xel la di ci di ci ñaan ndax bisub nangu ñaan la kon xam naa dañuy bañ a guddal ndax xëy na waxtu wi xat na euh, waaye daal bu ñuy wax ab murit dëgg moom jàppal borom Darou Mouhty waaw boo bëggee gis ab murit dëgg ndax sifaatu saadiqil murit yi Sëñ Tuubaa wax boo ko xoolee da nga koy fekk ci moom sëñ Tuubaa daf ni sifaatu saadiqil murid arbaatun nga xam ni daf ni nazamtuha bi ixtisaar xaw fa ixtiraar maanaam da way na ko ngir bañ ñu wor waaye asidqu fii ma abati cheikh abat su moom tisaali amri ay su warat boo xoolee bëgg dëgg dëgg dëgg sëñ Tuubaa bind ci loxol boppam nga xam ni sëñ Tuubaa mës a bind jëme ci kenn ci lu mel noonu bi bi muy bind lettre bi ba di ko jeexal daf ni ko ayyuhal masbuu bi ubbina maanaam yow yaay ki nga xam ni dañ laa rendi ci bëgg ma maanaam maanaam paaka bëgg bu amoon dañ cee di borom Daaru Muxti mooy ayyuhal masbuu fi bi ubbina loolu Sëriñ Tuubaa ko ko waxal boppam seedeel ko ko li li li ma ciy jox firnde rek ci misaal mooy bëgg gum bëgg Sëriñ Tuubaa borom daaru euh, mbooleem ku ko xam wala ku koy tagg mbaa ku koy kañ aw fit ak njàmbaar nga koy waxal mos la rët mos la tiit du jaaxle masi fu koo kalaame bor moo baaxle loolu sëñ Musaa ko wax dara mosu koo yëngal ci àdduna waaye benn yoon la mas a jooy ci kaw suuf benn yoon la ay ronkoñam ma sa tuuru te la ko waral Serigne Touba la keroog bi sëñ bi bàyyi ko bàyyi ko Mbacke Bari Mbacke Bari Jolof daat ne ko boo demee ba mënatoo fee nekk na nga ànd ak njaboot gi foo mën a nekk nga nekk fa di bay di ko dunde wax nañ ne nawet boobu sëñ Mandumbe la sëñ Touba jox ka la borom daaru jox kaamilub sëñ Touba ne ko demal jaayal ma ko ma jënd ci dugub sëñ Mandumbe dem jaay kaamil ba indi ko sëñ borom daaru daat ni daal di dogo ci yàlla ni tey laay mujj jënd aw jiw te noonu ma ko waxee noonu la ko defee ak njàmbaaram dana ci am loo xamante ni dootu jeex mukk bi mu demee ba mbay mi toll ci war a ñor tubaab yi ak seenu caay-caay ñëw ni ko fii da nga fiy jóge nu mu gën a gaawee mbaa ñu lakk daara ji borom daaru ne leen sëñ Tuubaa de joxoon na ma ndigal ci ni su ma demee ba mënatuma feneen naa tuxu waaye nag da ngeen bàyyi ba mbay mii ñor ma jël li ma fi am doo ko seet fu ma mën a dem dem biñ ko bëggee forcé mu ne leen bu ngeen doon taal kër gi ci sama kaw lépp day tàkk ñu àndandoo dee ba jeex waaye duñ fi jóg ci ak pas-pasam ak dogom ba ba nawet ba jeexee la fa jóge nag ñëw euh, Mbàkke Bawol sanc fi bi mu fi sancee mbas moomu amoon ci ci jamono jooju euh, wax nañ ni sëñ Muhammadul Yeddaal yi di doomi Sëriñ Tuubaa foofu la génne àdduna ndax loolu euh, moom borom daaru ku mbokkal nday ak bàyyi koy wax Ahmadou Daam Faati ci la génne àdduna ab jigéenam daal di jël waaye bi sëñ Modou Moustapha jëlee ca feebar bi sem sëñ Baara jël ci feebar bi wax nañ ni keroog borom daru taqalikoo naak sagoom keroog la mos a jooy ci àdduna daal ni suñu borom bo na naratee jël kenn ci njabotuk serigne touba gi na nga jël sama jëmuji wala nga jël sama wayjuru jigen wi sohna Fatisa wala serigne mu balla sama dom ji wax nañ ni kérok bima waxé lolou ba dog lolou nak ci la suñu borom tabaaraka wa taala jël mbas momé ben way bu ko daan nodal mom mo wax nañ ni mo fek balaaya mu daal di eh, tuxo fofu nak dem guy ngura nga xamni kon ak njàmbaaram aku fitam dara musko meuna mën waye lu laal ci serigne touba rek boko borom dara mo te nga jot ko wax nañ ni bi serigne touba génnee àdduna ci zaahir benn yoon la borom daaru masa demaat Touba waaye ñi mu a egg ci ci ci barabu sëñ mag bi fii ci bayti la yem ndax maanaam cofeel gu mu amoon ci sëñ bi ak yëg gum doon yëg Serigne Touba nga xam ne bëgg sëñ Touba moom kenn du ko ci jot kon nag jëmm ju noonu da dafa jot ci jamono ji ñu xam nan la taxawe woon ci yoonu murit ak ban responsabilité la ci yoroon ñu di ko jàngal ndaw ñi ndax borom daaru moo géej la goo xam ni leen lépp ngi ci biiram. lépp ngi ci biiram kon nag wax dëgg yàlla xëy na waxtu wi xat na euh, liñ ci bëgg a jukki lépp sax duñ ko man waaye daal euh, dañuy wax rek ni euh, nit la woon koo xamante ni dafa boole woon lépp mat sëkk boole charia ak xaqiqa ndax mboolem àndaar yi ñuy natte nit ci natte borom Daaru Muxti fekk ko fa mu fees ko dell dëkk bii bi mu koy sanc am na ñu ni woon ginaar gu mu yilif du fi sab lu ne ñu def ko fi lu ne lu ne ci wàllu baati nag zaay rek lépp waye tay defe naa ku ñëw ci dëkk bi lépp luy am ci dëkk amna fi lépp luy am ci dëkk amna fi nga xamni li ñuy tuddé al insanul kamil wala harif billahi borom daru moti eggon na fof dafa am ku ñu wax ibnu illahi dafa bokkon ci gor yàlla yi dafa daan wax ni arajulul kabir yamnaul kawnu walaw duhiya al qutb bi ajarin la ajaba neena nit dëgg gor yàlla dëgg dana toll fo xamni bo boo turum ci montagne wala ci doji dana la wuyu mam Cerno egon na fof ndax bi sanje sañcee dëkk bi sam yu fi nekkon bëgg suuf lool dañuy won borom Daaru moti duñ ko bàyyee suuf ci eggoon nañ ci diko def seen yoy ñuy def nga xam dañuy dem ba ci garab yi ci all bi fi waaw ci côté fetto dañuy gas ba jot ren bi jël seen sunguf def ci waxal jat seen jat daat ni cerno daal di door ren bi nga xam lool kuñ ko mas def rek bu garab gi buñ daggee ren bi day lax yow nga non nga def ba faatu waye buñ né cerno ren bi moy wuyu waaw bu ñu nee cerno ren bi ci boppam moo leen di wuyu nga xam ni ka ko doon def moom foofu lay tëdd di caddi caddi ba suñu borom def la la muy def ca moom nga xam ni walaw duxyal xutbu bi ajarin la ajaaba jooju kon borom daaru mooti eggoon na foofu ci suñu borom tabaraka wa taala nga xam ni kon dëkk bi mujj na e, lépp luy am ci dëkk am na fi sëñ mat jaw paxa dafa am bayit yu mu wayan nga xam ni daf ni daarun udifat ila muxtin ka jannaati fi lxardi wa tuuli wa naama wa naati ku ne xam na ni sëñ Mat Jaw Paxa eggoon na ci yàlla foo xamante ni du waxantu ku dem ba ni mooy mooy mooy sultaanul aarifiin kooku defe naa ne ay waxam du waxi du waxi caaxaan waaye daf ni daarun maanaam kër la goo xam ne udifat ila mu'tin maanaam dañ cee laaf dañ cee idaafa joxe waaye daf ni kajjannaatin dafa mel ni ajjana ci lan mu ni fil xardi wa tuuli maanaam ci yaatuwaay ak ci guddaay maanaam mbooleem luy xéewal boo ñëwee fekk ko fi egg na ci ci ci ci bayit yooyu Eh, daarun isa nasalat ahlul ilahi naalu naalu biha munahum wa naalu baadal minnaati nee na góor yàlla yi lu ñu mën a wut ci yàlla buñ ko amut buñ ko sàkkoo fii am ko buñ ko sàkkoo fii ci dëkk bi dinañ ko am loolu sëñ Mat Jaw Paxa ko wax te eh, Cheikh Ibrahima Diop almasharit boo delloo ci waayam firndeel la lu mel noonu ndax man zaara sayqiya Ibrahima Fati yara minal makarimi maala fil bilaadi yara ba raay yéeg a jeex noonu mu ko waaye xëy na damay bañ jël seen waxtu bi yëpp waaye wax dëgg yàlla eh, ñi ngi sant bu baax. di len di di leen xamal ni daal eh, wax deug yalla euh xeyna yitte rek ak ak ak ak ak ak bëgg ak ndigal moo tax ñukoy ñukoy ñu koy ndax mouride dañuy wax ni ndigal mom ciabi la bu uppé du ubi, bu bu yéese yi du ubi kon ci ndigal lañ tënk rek bay sànni ay kaddu eh, di ñaan suñu borom tabaraka wa taala Cheikh Sidil Mokhtar mi nga xamni mo wut Cheikhul Khadim suñu borom yagal ko fi lool ta may ko euh sëriñ Cheikh Khadim mi fi tewit teewal fi borom daral moti suñu borom yagal ko fi lol ak njabotuk borom daral moti gi yeb ñi ngi yeen di siyaare bax di ñaan suñu borom do wa taala liggey bi ngeen di liggey suñu borom nanguko ko te bu ko nangé mu ful ko ci barké jëm ju tedd ji tax ñu daje fi tay Cheikh Ibrahima fati borom Daaru moti jërë def jazakumullah ansanta suma at mamta fa tabaarakallaahu cheikh bi ñu ngi sante yalla bax lu itam na kàddu yi lool nag ndax na rafet na jek na te lépp dëppoo na li bis bi soxla ak bis bi ndax wax ji li ci am solo lépp mooy da nga lu baree bari ndax borom na ndawam ba magam lépp tàqaliko ak sëriñ Tuubaa déggaleen ko lool te bëggan ko lool ba sëriñ bi seetal ko boppam wax ko ci mëri ñëpp yi dégg waaye mu jëfit jëfum nuróog jëfi sëñ bi lool ndax nit ki bu la bëggee loo ko mu dégg ko war mu xam ko loo ko def mu def ko kon deggal ko moo ko waral kon bi ngeen ko seere mooy lu am solo ci ñun Eh, borom daal di ku yombalal murid yi itam ndax wane na nan la ñuy toppee Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndax nit ko boo ko bëggee lu mu bëgg nga bëgg ko lu muy def nga def ko borom daal daal di wane bëggam nag ci topp yàlla ak alxuraan ak sunna ni ko Serigne Touba bëggee woon rek ba mu jaral ko léppam jaral ko bakkanam jaral ko léppam kon fa tabaarakallaahu kon borom daal dimbali leen lu dimbal loo xam ni ko di murid tey jéem jàng ni ñuy toppee Serigne Touba da ngaa war a jéem a xam borom daaru nu mu doon doxee rek boo ko defee da leen yombal dana la noppalal waaye eh, li ma mag ñi wax it feeñ bi Euh, mag ñi dañuy wax ba ñu dégg ñolof dañuy wax ni nag bu wóoluwutoon béjjénam du ko xaseenoo moo waral sa mag toog nii ngeen toogal fi seen waajur wa xam ne ci ndigalul magam kili ay kilifaam lay dem ba màggalewu fi waaye moom itam mu jox la kàddu nga wax lu demee ni lii nga wax ci borom daaru wax ko ci bis bi te muy wax joj murit yëpp nga ko waxal nag euh, ku ko dégg ku nekk da nga bëggaat gën a doolee bëgg ci jataay bi gën a doolee bëgg ci bis bi gën doole doolee ci borom daaru gëna soppat Serigne Touba jissakum law yalla yalla defal jamm te defal nako ko yagli fevek, li fi fekk parce Serigne Touba. wa rahmatullah euh, mbokk yi ñogi fi ci karam Cheikh Bassirou Mbacke ñu wax Serigne Bass Anta euh, mom mam maam Ibra Fati mu melni euh, bis bi ñuy waajal tay di nisfu sahaban, di fukki fana ak juróom ci wéru sahaban di bis bu mag bop mom lañuy bégalé borom daru fa mu nekk ci lii na euh, digganteem ak Serigne Touba waaye duñ sori ci leeral lan mooy bis boobu ndax dafa am ñun toogal ak kun toogal sëñ Sonia bu ci doomi sëñ Basiiru mi euh, dana ci am lum xam loo xam ne jotal ko moo gën ci ñun nu déggee ko ci moom euh, mooy gën ci man waaye noo ngi toog ci kanam nag sëñ Basiiru juróom moom maam Cerno mu mel ni média bi fi ñëw tey ñuy wax seexrafaal point muy média boo xamante ni sëñ Fallou Fall mi ko jiite euh, taxawal ko liggéeyam mag ñi ko ñor lool ba tax na euh, fu mu toll bëgg na jeexital jooju mu di ko am di ko dimbalee taalib yeeg murid yi euh, moo waral nu toog fii tey ci bis boobu di waajal bis bi nag toog ci kanam sëñ Basiiru Anta Ñaŋ mi ngi ni toog kon sëñ Aboon jox la kàddu gi nga. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bañ leen ziare bu baax di rafetlu teewaay bi di jéglu bu baax kàddu yi ni yëkkati waaye ñu ngi koy def ci ndigalu sëñ bi rek ah, ci ndigalu sëñ bi mu leen sant di rafetlu dikk ngeen fi dikk comme ni ngeen ko waxee rek ci màggalu Daaru Muxti nga xam ni li ko sabab mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bi mu demee ci tukki bi te dënkon borom daaru moti njabot gi ak mboolem lepp lu mu bàyyee woon ginnaaw bi mu daje bi nga xam mom la ñëk dajé ak mam Ceerno ibrahim lool moy li nga xam mo sabab magal gi muy bis bo xam liñ ci mëna jangaté lu bare bare bari la war nan man nan ci jangaté ak taalube man nan ci jangaté it sax ci ak jup, comme ni ko serigne bi waxé légui maanaam xaddis bi mu wax léegi të moom dafa tënk lépp dafa tënk lépp ndax sunna si yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ku nekk xam na ni moom la sëñ Tuubaa doon yeesalaat sëñ Tuubaa bi daa waxoon ni matal naa seen diine waaw ma amul dara luy lu ñuy sosaat diine ma matal naa ko al yawma akmaltu lakum diinukum sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa waaw mu nekk alxuraan muy aay am nañu wax sax muy aay bi mujj wàcc alxuraan yonent bi salallaahu alayhi wa sallam maanaam euh, man Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul wax ni euh, lil Moustapha na waytuma yujaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu man sama yéene mooy ma yeesalaat sunna su yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam kon moom sosu dara dafa fekk li yonte bi indi woon mu yeesalaat ko te ci loolu la sëñ Tuubaa yaroon mboolem ñi mu yar ñëpp te ñu gën ci ràññee rakkam jooju muy maam Ceerno Birahim ndax sëñ am na ab naaru gànnaar boo xam ni bi sëñ bi nekkee gànnaar daa mos a dafa jóge gànnaar ñëw di seet si ñi sëñ bi bàyyi fii ginnaaw euh, ñi sëñ bi yar seex sëñ bi bi mu delloo gànnaar di nettali sëñ bi naan ko bërëb sàngam dem naa fa bërëb sàngam dem naa fa lii laa fekk waaye bi mu egsee ci maam Cheikh Ibrahim ne ko fekk naa ko dana ko noppil ne ko kooku de nu mu mel rek mën li nekk ci moom lépp maa ko def fekk naar bi danaan liggéey ay satare mu ne ko mel ni sas kii kii bii nga liggéeyal sa bopp rek yaa xool na nga ko bëgg a nga nga defare ko noonu set léegi mm-hmm. maam Thierno it noonu laa ko defaree mat googu Sëriñ waa def ci moom moo tax mu boole woon sariha ak xaqiqa waaw boole liggéey ak jaamu yàlla di jiite ci jàkka ja ba noppi man ci liggéey di ko dajale te bëggutoon àdduna waaw bu maanaam amutoon ay oto yu rafet amutoon ay kër yu rafet doyloo néegu ñax bi mu dëkkoon nga xam ne sax nu ko waxee dawuñu ko dër sa maanaam dawuñu ko dër si mu na ko sëñ bi nett na ko ci tërëm bi boo xam ne dafa ñëw nekkoon ko nan din dër bi ndax dër bi dafa àdduna te àdduna tabax xaju fi nga xam ne kon néegu ñax bu ak dem ca jàkka ja jiite mbooloo ma ak dem ca tool ya liggéey ca loolu la ca loolu la saxoon ci loolu la leen sëriñ Tuubaa yaroon waaw ah, te tey ci loolu la ci loolu ci loolu la nekkoon sëñ biit ci loolu la nekk moo tax mu ngi leen sant bu baax a baax ci ñëw gi ngeen fi ñëw di ñaan suñu borom defal ñu ci paju xaajo ci màggal gi comme ni ko bëggee rek ci daraje sëriñ tubaa ak jëwriñu jëwriñ jëwriñam ju tedd ji nga xam ne moo waral màggal gi tey muy maam Cheikh Ibrahim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, waaye maam Thierno ak sëriñ Touba seen diggante day diggante bopp li ci njëriñ dafa bari ndax waxuma la maam Thierno bu ñu waxee ni kan moo ko yar ñu ne Serigne ndax sëñ bi defe naa ni euh, aas bi mu am ak bi maam Thierno amoon bi muy feeñ man koo yar di muy rakk nga yar ko ma xaj na fa. te itam bu ñu moo ko jàngal ñu ne Serigne Touba loolu doy na xam waaye nag lan lañ bokk daa bari ndax soxna Faati Ise mi nga mooy waajuram di jigéen bokk googu képp buñ ñu ko indee teg doy na bokk gu rafet te doy na bokk ñu war a sàmm soxna Faati Ise soxna ab salobe Mbàkke mooy waajuram soxna ab salobe maam Ahmadou soxna Bousso moo ko jur waaye Serigne Touba maam jaara Bousso mooy waajuram maam jaara soxna Astawaalo moo ko jur soxna Astawaalo Ahmadou soxna Bousso moo ko jur kon ab salobe ak Astawaalo maam Asta Waalo ñoo bokk wenn waajur muy Ahmadou Soxna buso ñu dellu bokkeet ak moom ci Ahmadou Soxna Bousso moomu ak maam Bala Aysa maam Bala Aysa mooy mooy caatum maam Maaram maam Maaram euh, Ahmadou Soxna Bousso ak Seyed Soxna Bousso ak Thierno Fary Mbacké ak Ibrahima Awa Niang euh, mat nañu fukk ak benn defe naa ni ñoo xamante ni ñoo bokk wenn waajur maam Bala di seenam caat maam mooy waajuru Maam Mor Anta Sali maam Anta Sali mooy waajur Seexal Xadim ak maam Thierno kon noonu la maam Thierno bokkee ak Serigne Touba waaye bokk li ma am am njëriñ lépp déggoo gi mooy li ci am solo témoignage yi nga xamante ni ñiy wax ñëpp wax nañ ko ci dafa mel ni déggoo gi rek moo tax li lu ñu yëngu sumb mu nooy fuñ bëgg a àgg it àgg nañ fa bëgg a def def nañ ko loolu daal mooy li nga xamante ni loolu laay def tax li xaat ci jotal ci kat jotaay mbirum maam Thierno ndax kii nu toogal tey dafa yombut di ko amee noonu ndax li ngay wax ci maam Thierno di ko wax ci wax Sëñ Touba doomi maam Thierno ngi nii toog di dégg kon day wax joo xamante ni nun fii nu ko fi waxee nii euh, bégg nañ ci mbég moo xam xamante ni yàlla nañ ko fi yàgg fekk nag te mu yàgg taxaw bis bi ànd ko kilifaam yi mu ko àndal te nu yàgg doon ay taalibe te yàlla nungal suñu taalibe nu ngi koy ñaan baax di la ñaan baax Mbàkke Bàlle sax di ñaan nga yàgg suñu kanam ngeen nga ñaanal lu te fàttalikul site bi itam borom nga ñaanal ko ba yàlla kàttanal ko ndax sëtub Cheikh Ibrahima Fall la ku ne xam ne diggante Cheikh Ibrahima Fall nag ak maam Thierno Ibrahima ñoom nag ca meen ñaari jàffuñ lañ di ñaari jàmbaar yoo xamante ni borom da dani woon eh, ginnaaw Serigne Touba ñaa ñooñu képp lañ jàpp ni bu ñu wuutoo Serigne bi ci seesam fetal dana jib ci réew mi ndax dañoo doon ngër mi gi kon loolu itam loolu la ci loo xamante ni Seeru Fall ak maam Thierno noonu lañ demoon ci bokk itam eh, kon nga defal nu ñaan rek nga ñaan la Serigne Fallou ba li mu bëgg ci média bi yàlla eggale ko ci Mbàkke Bal bisimilah amiin amiin amiin amiin amiin amiin amin amin ya Allah amin ya Allah wa rahmatullah kii noo ngi fii ci bi ëttub Sëñ Abbas di doomi maam Thierno di kenn ci njabootam du toog ak doomam Cheikh Bassirou moom Sëñ Abbas mu war a wax ak yow bis bi di waajal di suba ak jàmm di bisu nisfu saabaan bisimilah sëñ Bassirou alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi radwaani wa tamkin ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare di leen ndokkeel ci bis bi ci turu sunu kilifa sunu waajur sëriñ Abbas leen sant ci taxawaay bi ak teewaay bi loolu kon ni nga ko waxee rek ñu ngi ci wàccaayu bis bi nga xam ne ci la Cheikh Ibrahim Dajek Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul te bisu mbégte bi yoonu murid wépp yo xam ne eh, ndaje boobu ci la amé won ndaje ba itam waxtañ ne waxtaan wo yatuna lol serigne daan wax ne fañu jotaay bañu nek fa lañ bok julli juroomi waxtu serigne bi diko ko lim li ci tukki bi momit mu diko wax lim fi bayiwon ak nim ko ak nim ko serigne bi wax ne ko ne ko man day japp na ne yow bo demone ma dess fi ni nga am ak saytu ak ak loolee du du du ko man man ku ne xam na ne serigne touba eh, li maam Cerno man lepp moo manal mënal mu xam lepp moo xamal bu ba diko sante ba diko bay ag ak mom fofu day day wané ne kon ak defaram la lepp mom la mo demone itam mo defaral ginnaw itam ba tax na kon bis bi moom bisu yoonu murid yëpp la dañ ci ñaan yàlla lañ ci jëlee ci tawféex ak yiw ñu yàlla boole ko mboolem taalibe yi te itam sant mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ñoo fi teew yëpp ndax xam nañ jamono ak xat-xat yi ak melokaani waaye loolu lépp feeñu ci seenu bëgg ak seenu pasteef lañu boole ba bis bi mel nam daan mel nu ko raw loola ni jamonoy xat ak lépp lépp feeñu ci kenn ku ne def na li nga man ak li nga manul ba tax na ñi ngi leen di ñaanal te di leen sant ñoom taalibe yi nga xamne yépp yëpp nañ ci ak yi yéene woon a teew yëpp te mënañu ko di ñaanal sun kilifa gi tam sun borom bay ga fi te may ko ak wër ba limu mu yéene liggéeyal Cheikh Ibrahima mu defé ko nimu ko nimu ko bëggé ko ñaanal Serigne Cheikh Khady ak Serigne Sidi Mokhtar di ko ñaanal taalibe yépp no kaddu yi cant rek lañ doon ci jëmele ko ci taalibe ak mbokk yi ak yéen ñu fi teew yi tam yépp leen ñaanal bu baax a baax ki ñuy itam di ko fàttaliku Cheikh ibrahim nak mu nek roy kay bo xamne jeufi sayram rek buñ ci yamon jarna wutal bis jawral na rand omos ndax it bu fekkonte ne fi ñuy weexee muy darul mawti képp ku ñu wax ne ya ya ko sos té itam tay mo mënon nek forêt classée bo xamne ak jurofi nek ak rabi allah fofu bu fa yamon ak Sénégal yi rek ci jafi sayram rek bu fa yamoon war na ku jar na bi sam rawatina na limu defal diine ak yoonu murit ak limu mu defal Sénégal ku ba tax na kon sam ñepp ci wara a taxaw ñëpp ci wara gor gor lu skem seen kàttan xam na te roye ci mom itam ndax dafa boole won liggéey ak jamm yalla te ku ci ku ci ne xam na ne liggéey bi moy yéwénal këru aduna gi jamm yalla gi moy yéwénal alakhirah tax na ñaar yooyu rek la daan di dénkaane na sax ci liggéey ak jaamu yàlla ndax ku liggéey danga nga am loo yéwee ne fi sa nekkuk àdduna ku jaamu yàlla niki noonu tax na loola ca la saxoon liggéey bi itam moo ko mayoon ba yàlla may ko sëniñ bi mi ngi wax ne bi muy jógee Mbàkke Kajoor dafa ñu bari nañoo jàppoon ne sëñ bi tey ko ndax ci waxin ndax it nee na bi muy ñëw daal moo te di ko gor ndax fu mu mas a nekk ba mbooloo fekk ko fa rek mu jàll faneen fu mën a wéetee ak fu mën a liggéey ñuy jógee Mbàkke Kajoor wax nañ ne bit bu set aw nag lañu fa daan rey ñu dëkk ba xumbee ba mel noonu mu jege si daal moo di ko itam ngir liggéey ak jaamu yàlla kan ba tax na ñuy tudd di ko tudd ñu taalibe yi yëpp war nañoo futteeku ci liggéey futteeku ci jaamu yàlla ndax loolu lañ mën a jànge ci ab ndam ndax moom la moom la ko jeexale tax na mm, dañuy yemale kàddu yi foofu rek kaddu yu weesuwul sant len ak ñaanal len da dul amna ndigal li sax motax mu meuna yewen ngir ne fal amru sartun bi khubul sant <laughs> buñ ko tele won sax buñ ci jotté ndigal dañ len meuna wax loolu deug motax dañ len di ñaanal ci di len sant bu baax te di len gëreem te ñaan tam seen jumtukaay bi media bi yalla jëmele ko kanam ba ni ngeen ci yene ngeen mane ko na ngeen ko bëggee jërëjëf jërëjëf Cheikh Basirou ibnu Cheikh Abbas Mbacke ibnu Maam Thierno Ibra Fati mu mel ni di euh, taxan sëñ bi woo la jox la kàddu yëpp matale nga ko ci biir wax ji fa tabaarakallah waaye jotaay bi bi moom boo ko xoolee daal di mandarga muñ ñu la jox ci Maam Thierno mbaa ñu jox la ko ci Serigne Touba da nga ko mën a gisee fii ndax euh, Serigne Touba ko fonkan suñu mbokk yi di naar yi gànnaar yi te euh, ku leen joxoon cër la te ñoom fu ñu yaatuwut xajaluñ leen fa dalaluñ fa duñ fa ni jàng. waaye nag euh, boo ñëwee fii gis leen fi ñoom ñëpp xam ne waaye gi nii woo xamante ni euh, ñoom fu ñu jëm fa ne xam na lu tax xam nañ lu tax ñu jëm fa kon daal si Abbas ñu ngi ñaan rek ñu yàgg ànd ak magam ñu yàgg woote bis bi nu yàgg leen fee fekk euh, yàlla defal na xéwalu nag borom média bi di Sëñ Fallou Fall Cheikh Fall Poye comme yàlla kattanal ko ba li mu bëggal nit làmp bi mu bëggal ni doon ci leeral ci yoonu murit yàlla dimbale ko ba média bi man fa àgg jërëjëf barke Sëñ Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم في نوتوك نوغي سي اتوب جامباري مام تيرنو شيخ محمد الابيب واي بايون في جامباري جي نيب خامي سي مصطفى ماي موم سخنا ماي مونات كبرى موم سي خيل خادم خادم الرسول waaye yàlla dogal kii ko fi wutu tey di sëñ Mbàkke eh, di xalifaam eh, ànd ak bokkam yi nga xam nag ñooy bokk yi daroon maam Thierno Ibra ndax bu ñu nee maam Thierno rek xel yëpp dem ci sëñ Mapaate Sylla tey nag ñu mën a wax ni njabootu sëñ Mapaate gi ndax maam Thierno mi toog ñu ko borom daaru eh, di doomi maam sëñ Mapaate Sylla doomam ay doomam toog nii den ak moom ak seexi njawe yi nga xamante ne ñooy seexi borom diwaan ku ne dégg leen ak borom diwaan dégg borom diwaan ak borom daaru moxti dégg borom Darou Mousty Serigne Touba muy jama euh, lu mu gàtt gàtt ñu jox kàddu gi boroom muy maam Thierno mi nga xamante ni mooy yilif jataay bi ci ëttub Cheikh Mamadou Habib fii ci kër euh, sëñ Moustapha May bisimilah sëñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ci baaxu sëriñ bi wax nag dañ ko mënewul waaye lañ ciy wax moo di Cheikh Mapaté ak borom Darou. benn lañu kenn mu leen a xaajale Cheikh Pathé ak taalibe rek ko ci la daan dox ci lay wax ci lay jëf yoon woowu mooy ci lañ fas yéene aw sëñ Mourabit bi mi ci yoon la aw wàccu ko am na sëriñ bi am nay bokkam waxuma lu ko neex damaa wax rek li am ñëpp seer man damaa seer ci loolu man nag ñu sëñ bi jur ñëpp man kenn laa ci mag ñëpp mag. waaye ndigal rek laa nangu ndigal laa ñime sëñ Moustapha mi bi sëñ Cheikh si la wàcceeb liggéey ci moom laa mottalee sama taalibe boo léegi war naa dem ci fanweeri at sëñ Cheikh moo ma yar moo ma tarbiya lu ñuy def ci man moo ko def ci man ba mu noppee ci man ba woo yàlla ba gisatuma ko ma jëbal sëñ Moustapha may tudde naa ko ñeenti Moustapha ak ñeenti soxna may sama ta sama taaw fa la nekk ni tarbiya wu am na fa ñaar fukki at ak ñaar bi sëñ wàcceeb liggéey sëñ Mbàkke ci laa jébbalu yaakaar ko na ma yaakaaroon bàyyam ngir jëmi sëñ Tuubaa Ceerno amul lu borom daaru musti sama maam it dama ko ci fekk ki jur sama ndey borom daaru la yaakaar tër bi yow ko ba mu wàcce ko xabaan la nekkan ba mu fa jógee mu ne ko demal sanc ci dëkk ba forboot waaye bul dëkk ci seen bi dand leen mu dand leen kon nag sëñ bi moom wax ji mënut bari sax ndax damaa mënewul wax waaye kat sëñ abi mii kat ku ñu sant la ku ñu gërëm la ku làqi ngërëm la làq ngërëm sëñ Moussa may làq man mi sama ngërëm ak ñeneen te sëñ bi daa wax ne ku ñu gërëm ku mu gërëm am nga gërëm sëñ Cheikh ma ko wax te ne moom làq na ngërëmul Ceerno Ceerno làq na ngërëmul sëñ Touba sëñ Touba làq na ngërëmul yonente bi abi mi ne ku ko gërëm laa ko ko sant laa ndax li muy def ci man gis naa ko saa bokk gis nañ ko yàlla gis na ko yonente bi gis na ko Cheikh gis na ko ku ñàkk ki ñaan la nii kaalaam gi weexe ne la xol bi weexe waaw wasalaam. tabaarakalla wax ji mooy seeres li sëñ sëñ Mbàkke bëggoon rek mooy boo dikkee ci ëttu borom daaru fekk fa njabootuk sëñ ma paati si la eh, jàpp naa ni li li xorom baaxee ci cin lu lu war a neex sëñ ma paati noonu la xoromee yoonu borom daaru kon eh, buñ fi sëñ Mouhamadou Habib nag seeres si nga jox lépp nun am nañ ci lu xam lu wér ndax noo ngi ànd ak moom ci buy liggéeyal sëñ Moustapha May ba laq ngërëm moom nuy seere loo xam si ñun saa di ko gërëm ci suñu kanam waaye nuy gis itam nag ni mu fonke waajuram yi ko ko demee ni yow mi ak ñi nga bokkal suñu paate ñëpp ñëpp ñi ko mag ak ñi moom njabootu suñu paate rek la jàppee ni ñi mag sax defee na ni ñoo di sëriñam kon nag sëñ bi yàlla na fi yàgg rek sëñ bi li ma waxani ma demal ba ci sëñ bi Modou bi nga dégg ko micro bi ñu jël ko image ci ëttub sëñ euh, Moustapha May bi lépp ci cant ak sëñ Moustapha May rek moom la ñuy lawal ba léegi bu fekkee am kàddu yoo ci nga dolli ko auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taalaa wa barakatoo bokk jullit yi bokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu ci ndigalul sëñ Siidil Muxtaar xalif général des mourides ñu ngi leen di nuyu ci ndigalul sëñ Cheikh Khady xalifab Cheikh Ibrahima di leen nuyu it ci ndigalul sëñ Mbacke xalifab sëñ Moustapha Maymunatu Mbacke di leen jottali ay kàddu yu tuuti rek. yoo xam ne mooy ndigal lu xas ñëw ba ci nun ñu koy waxee waaye wax dëgg wax sax ci média ak télé mënewuñ ko waaye nag maam Thierno moom maanaam euh, ci euh, daarul Muxti am na luñ ci foog lañ ci ndax lañ ciy foog mooy Cheikh Ma Paate si la yàlla dogal na keroog ba mu àndee ak maanaam Serigne Touba ba yàlla dogal ñuy dem di dem di dem ba sëriñ Touba wàññi ko woo ko ni ko Ma Paate boole naa la ak borom daarul Muxti demal fa borom daaru moomee taxawul ma ko. sëñ Ousseynou Sy la nee na kero ba loolee amee dem na ba sëriñ Touba kero ba mu demee tukki ba ñëw ci njaareem woo na ma Mapaté ba mu woo Cheikh paate ni ko Cheikh Mapaté ana loo gën a bëgg mun ko xanaa am la yàgg sa ñoñ mokk ko ay yoon mokk loolu yi mun ko ma Mapaté lalal sa kaala dégg naa mu lal kaala mu ni ko tibbal mu tibb barki loxo suuf mu ni ko tibaatal mu tibaat mu ni ko tibaatal mu tibaat mu ni ko tibaatal ba muy ñeenti yoon dégg naa ma ni ko ma paate boole na laag ruyu toll noonu yow ma xëy ma xeeti leen lii sëñ bi wax na ko Baye Aliou Guissé wax na ko benn ba loolu amee wàññi nag ndog yooye nga xam ne nag commencé na ko daa ko defal nag maanaam ma sëñ Tuubaa mu fas yéene nag di ko def ci këram googi ci njaarim ci kër Baye Laay googi sëñ fas yéene nekkoon di ko dogg nag di ko yóbbu këru mag ba loolee di law di law di law ba tey jii yàlla dogal mu dem ba kii ab taawam tey muy sëñ Cheikh Sylla Diwane maam Thierno Ibra Faati la ko tudde wàññikuwaat euh, sëñ Thierno maanaam aram maam Thierno la ko tudde wàññikuwaat sëñ Thierno Fan Ndiaye maam Thierno la ko tudde wàññikuwaat sëñ Thierno maanaam dooki maam Thierno Ibra Faati la ko tudde wàññikuwaat sëñ maanam maanaam euh, Jamil maam Thierno la ko tudde wàññikuwaat sëñ Thierno mii doon wax ak yéen di loxol sëñ Sidil Muxtaar mu toog téye ko ci këram di loxoom di ko jiitaloo jàkk joojee maam Thierno Ibrahima la ko tudde kon sëñ ma paate moo xam borom daaru doomam yëpp borom daaru la ko tudde ni yot sëñ Tuubaa def doomam yëpp mu tuddee ko yonante bi maam Thierno doomam bi ci ëpp yëpp moom sëñ ma paate tey maam Thierno la ko tudde kon nag loolu dégg nañ ko ci xam lan ne sëñ ma paate bu masaa jógee diwaan bu ñëwee bu feewu guy taal day wàcc aw fasam jël kaalaam gi takk ci ndigam su mu ay dàllam ñu def ko ca gafaga ga mu doxe guy ba egg si daaru su jubee borom daaru lu toll ci fukki mètre ak lu topp day raam dégg si ci moom bala mu koy wax bu jógaatee day raam bu weesu ko jógaat dem nga xam ni moom lu ko borom daaru wax rek loolu kenn wérantewu ko ba diiwaan dégg naa ons lañ ko sanc daaruñ sanc ko 1912 mu doon jëwriñ joo xam ne fii kenn wérantewul mbiram waaye jëwriñ googi nag dafa continuer ndax ay doomam ñi koy doxee maanaam ay sëtam ñi ngi koy doxee waaye gannaaw ba loolu jàllee kër gi ñu toog dafa toog taxawa taxawaay ñetti tànk sëñ Moussa moom soxna may Maymuna sëñ Mbàkke bu saay maamam sëñ Tubaay maamam maam Thierno bi Faatee maamam sëñ Moda bi mii baayam tey su ko borom daaru Muxti jurul woon it dana am cër bu toll ni cër bii wala bu kopp ndax dem nañ ba sëñ Tubaa woo sëñ Moda bi di ko bindaloo alxuraanul karim dégg naa kaamil ba mu njëkk a bind ba mu paree daa defe ne day dem sëñ bi joxaat ko kayit ak daa mu commencé waat ba dégg nañu bindal na ko juróom benn fukki kaamil ak ñett loolu la ñu wax nañu ni sëñ maam Modou Habib soxna Xadijatu la njëkk a denc muy doomi sëñ Touba mu làqu sëñ Touba wàññikuwaat joxaat ko soxna may ko Kubra ba soxna may mii mu ko jox di doomi sëñ Touba joo xam ne moo am ngërëm tey way jur sëñ Moustapha May wii nga xam ne tey moo bindal sëñ tubaa kaamil Alxuraan boo xam ni keroog ba sëñ Touba demee maanaam sa Seex Sidee ba wax nañ Seex baa ba dafa jël ñaari doomu doomu jigéen yëpp ñuy jàng alxuraan ci kanam sëñ tubaa daal ko ci sama maam lii maa ko ci am sama doom yëpp mën nañu alxuraan nee na loolee ni tikki sëñ tubaa biñ demee ba yàlla dogal ñu dem ba soxna May yàlla indi ko ci àddina sëñ bi jël ko jox ko sëñ am Abdourahmane maam Thierno dalal ko ba mu demee foofee ba mu jàngee bay bind bay taalif Cheikh Sidiye gane siwaat sëñ bi mag bi sëñ Mor May nee na sëñ Touba jël fukki kilo akub gàtt jox soxna May ni ko toggal ma cere lay nee na mu defal ko cerey lay ba pare jël kaamil bi mu bindaloon baayam teg ci kaw la yóbbu bi naar yooyu ñëwee sëñ bi jox leen cere ji ñu jëfandiku ba noppi ni ko lii xanaa nit togg ko mu daal leen jox téere bi bi mu leen joxee téere bi ñu xool ko ni ko xanaa nit bind ko mu ni ko ki togg cere ji moo bind téere bi sa doom mën na alxuraan waaye mënu mënu mënu cere jooju soxna may sama tikki xool ji dindil nga ma ko gana nga ci néeg dinaa la ko tudde muy soxna may tul kubra mu tudde ko soxna may sàqir wàññi ci lolé nak dal ni ko nag yow man xëy am naa na jox dalli weñ nga dem sawara loolu seigne Abdou Samad mom seigne soy bi wax nako manam seigne Moussa am seigne Abdou Khadir waxtu demé mag soxna may dañ koy fatali wat dana la jox dalli weñ nga dem yowmal man bo demé sawara ku la neex nga génn ko tabal ko àjjana koku moy soxna may ci atam lañ nek ci keur seigne Mor Habib ci keur seigne Abdou fadi soxna may wàññiku dégg naa ñëw ci nek mam néeg ibrahim fadi ca mam te jël ko jox ko doomam sëñ Mour ay koppi xular ak i baraadaag yu rafet na ci néeg bi dégg naa soxna may xool lépp ba bi muy dem nee na maam Thierno ni soxna may néeg bi ak li ci nekk jox naa la ko addi nee na nit ñi wax mu ne doomi sëñ Tuubaa lu mu gis bu ko bëggee bokk jox lu mu yàqu daal di koy jox lépp addi nga xam ne xoolal ñoom xamante ku toll ni it Cheikh Abdou Fati sëñ Tuubaa dem bay dénkaane sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallu ca Mbàkke Jolof Mbàkke Baari loolu bërki dem rek toog nañ ak sëñ Cheikh Oumy ci lu Mbàkke Baari gi mu ne koy nettali mu ne sëñ Cheikh ma jooreel baayam sëñ Cheikh Coro moo ànd sëñ Fallou bi ñuy déclaré foofa nee na bi mu ñëwee sëñ Fallou ñu ko gasal fee nee mu gas mu ne ko gasal fee mu gas mu ne ko gasal fee mu gas nee na gis borne yëpp nee na fii ko fii fii la taxawoon ak fas ba fii la sëñ Modou Moussa ne woon fii laa taxawoon mu ne dénk naa leen yàlla ak seen baay Thierno doog a dem liggéey kon kan mooy Thierno ndax nun tey su ma tuddoon maanaam bàyyi ko so mi rek maanaam teg ci yàlla ñu ne damay bokkaale te sëñ tudd na yàlla teg ci Cerno kon nag kan mooy Cerno nan wàññi ko waat xam ni Cerno mooy sëriñ Tuubaa Cerno mooy yàlla sëñ Tuubaa mooy yàlla loolu ku ko werante ku ko dégg ci télé bii wala nga gis ko wala nga werante ko boo ko waatee da nga lakk sëñ kenn mën koo tàqaleeg yàlla kenn mën koo tàqaleeg yonente bi kenn mën koo tàqaleeg borom daaru bi fi sëñ ma bi sëñ maam Mor Anta Sali jógee it sëñ Tuubaa soxlawu dara lu di téere bi ak ma Ceerno maam maam Ceerno yi soxlawu dara lu di borom maanaam sëñ Tuubaa kon nag loolu ñu ngi leen ko ci xamal ci suñu xam-xam bu gàtt di leen ko ci yégle di ko ci wax wax dëgg yàlla loolu doy na ca am na leneen lu wund soxna maam Ndaak Ja mi nga xam ne maanaam tey mooy fondation kër sëñ ma paate wax nañu bam nekkee ca ci la daapa da dag ay soccoom di wut maanaam sumpam di wut adiyam di dem ci seigne touba keur gu mag di jox adiyam ba amna manam geej go xamni xam ne fa la daa barki dem rek jaar nañ fa di siaré mom mo jox fa ndigal ni nañ ko miré soxna Ndang momé dem nañ ba am fi man warax bu fi né wo xamni dafa doon nang wor mën liggéey ba ñu ci atu keur borom daru ba dégg na ni manam soxna ndak momé ag na ci nangoo seuf ndax daru ñak dam ndox ba dem nañ ba bu ko fi ma saa mar xott xaal la ñuy jël xoos ko ba mu kii nga naan ci soxna ndaak moom mel nag ñu daa takk di ci rek ay biir di di rooti rooti googee nag mu nangu ko lool bañ tuddee ko ndaak moomee ndax nangu ko yàlla mi tawat dara tawul ñu dégg ñu Cheikh Abdou Fati am na bés ñu ne ko ndaak de bukki lekk na ko dégg naa bu daal di joxe ndigal ni maanaam ndigal li ma joxe de mooy bukki ba ko lekk nañ fexe ba gis ko taalibe daal di àll bi ak seeni fetal ak seeni jaasi bukki buñ gis rek rey la bukki buñ gis rey bukki buñ gis rey ba rey boo xam ne bañ ko buddee gis ci dàgg ba ñun bii moo lekk ndaag kon ndaag sëñ ma paate lim yor lu rëy la te dégg nga fi mu toll ci maam Thierno kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ca bis bii nag mooy ceebu mag mi nga xam ne ci yoonu murit nun ñëpp ci lañ war a sóobu ji ji sunu jiwu ah jiwu mooy nangu rek nga xam ne lépp luñ bëgg àddina ak àllaaxir tey mën nañ ko jaame yàlla na ko ci yàlla defal ci daraje sëriñ Tuubaa daraje sëriñ Moussa may ci sëñ Mbàkke mii nga xam ne tey mooy xalifa bii fi nekk ñu fekk fi ko fi nekk ak moom jébbal ko suñu bopp donc suñu baay bii ñi ngi ñaan ànd ak moom téeméeri at ci liggéeyal ko liggéeyal boo xam ne na ëpp doole liggéey mi liggéeyal sëñ Moustapha May ci darajee borom daaru darajee sëñ Tuubaa ci sëñ Sidi Muxtaar yàlla na fi yàgg ci wér lool ak njàngat sëñ ma paate si lëgi ak bàyyi ko sumi ak sun rakk yi ak taalibe sëñ Tuubaa yëpp jërë jëf wasalaam yéen waa rajo it ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm yàlla na leen yàlla dolli ndimbal may leen kàttan ba bu nag ni si demee leen ñun ñëpp ñu teewaat bis bi ci daraje borom daaru jërë ngeen jëf wasalaam waaw sax Cheikh Ibra Fall uh, ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di may kàttan goo xam ne nii télé bi yàlla na ko yàlla yóbbu ci télé yi gën a kawe ci daraje maam Thierno daraje Cheikh Moussa ci am nañ ci yaakaar ndax sëñ Cheikh Moussa may nee na ma Habib foo ma woo mu la kon nag woo naa ko foofu jërë ngeen jëf wasalaam tubarkalla Mbacké Baye My